asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu sëriñ bi noo ngi lay nuyu te di la ziar di am laaj bu jëm foo xamante ne bii mooy ci la xelu doomu aadama yépp nekk te mooy dëgmal mu di màggalu Tuubaa di fukki fan ak juróom-ñett ci safara ñu gis ne bis bi ñor na sëriñ tubaa lool waxal na ci boppam it lu bari doomam yépp it yàgg nañ cee soññee mu mel ne mën na te am na waajtaay wu rëy woo xamante ne bii laaj na ko ñu bëggoon a xam rek darajey bis boobu ak ni mu toll sëriñ bi ak fi mu toll ci njabootu sëriñ bi. waxtaan ci màggal Tuubaa dafa moo ci ñuy wax simi similojiyatu màggal ak i sakiraan ku ko tudd faaw mooy natt yi ma doon nekk moo jur màggal. màggal gi nag ak pay ndax kon la li ko sabab waxoon naa ko kon damay delsi ci li ko waral li ko sabab mooy natt bi ci at mu juma rek sëriñ bi ni mu baaxoo at mu jot mu di ko waajal ngir xam ne nattu yaa ngi bëgg suñu borom xamal ko ne ko nag nattu yi jeex na ak pay gi des pay gi it ni nattu yi daa demee rek ndey saa su delsi fu sag fu sag mooy tolloon rek dana ko weesu loolu nag képp kuy dund màggal yi màggal bu weesu bu agsiwaat da ngay yéene màggal yi gécceel na da weesu loolu kon feeñ ku ne nag da nga ko yëg ndax sëriñ bi ba mu nekk ci liggéey ba te liggéey ba sotteegul ci la tàmbalee waaye màggal yi katabtu yowma sabti inda galwa baxda jihaadi wa firaaxi balwa لله الذي قدرنا لي العلا وساخ لي أعراضا فزت لدى جلوى وعند بأفلي بما به أنير كل ما أفلي looloo waral màggal bi leeral ba leeral mboolem palaane bi ci àdduna loolu suñu tubaab ba tey fu bëree bëri itam wax ne dana sant suñu borom cant goo ne dana méngoog lim ma ci njëriñ nag dal yi nag dafa wuute 1920 wirda dañoo wax dat bi wax dat bi ndax am na ci at moo xam ne sëriñ bi da ko def te waaye lu ci mën a xew rek ci dat yooyu sëriñ bi bi ko wootee xam ngeen cosaan la ndax day gudd ak te wax ji dafa xaw gudd ndax gàtt bañ ci njëkk rey sëriñ bu laa bisu moo ko jox àddina mu nekkoon ubay sëriñ bi soppali ko am xar sëriñ Balla Fally Dieng it ko sëriñ bi digaloon teel ne ko nareel ko loolu mooy cosaanu màggal gi dafa waxoon ne képp koo xam ne mbégam sa mbég bu màggal gi ak seetal na ko ci sant la yàlla ci xéewal yi mu ko fi def bis ba mu njëkkee wootee nag ngir di ko yëgal nit ñi dafa fekk kenn ci taalibe yi ndax mbiru Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa lu ne ak na ko suñ borom dogale ndax dara li ñuy wax sut fa du ci am fi ko sëriñ bi wootee ba taalibe yi ñëw dafa am benn ci kenn ci taalibe yi fekk ak lëg ku rafet ci àllum jaay moo jàpp ko indi ko sëriñ bi bi sëriñ bi waxtaanee ba noppi mu jël lëg gi jox ko sëriñ bi àddiya sëriñ bi daal ne xanaa lëg gi di jaaxle na lool ñëpp ne cell mun ne xam ngeen lu tax ñu ne ko dee mu ne daa sori bokkam mu ne nag ñii daa meloon ci biir tubaab bi kon loolu mooy màgget gi Cheikh Abdoul Khadir Mbacke daal nett ne Cheikh Mouhamadou Moustapha moo ko wax ne ko sa bàyyi de nee na ma ajjana di amutu bis waaye bu ñu demee ba ëllëg bis bi màggal Tuubaa daa agsi suñu borom mu bindoon guddi ak bëccëg xam na waxtu moom daal di jot ci àdduna kenn ku ne bu màggal gi agsi da bu yokk ci yow boo xam ne nga xam màggal gi dafa kon màggal ba mooy lépp lépp lu ci waaye defee sa bopp nga koy def Serigne Saliou Mbacké daana wax na Serigne Touba nee na ñaar buñ dende kii di ko màggal kii di ko ñàkk a màggal ka koy màggal waxtu ne muy gën a gis du ko kii di tiime kon la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké rek mooy dëgg-dëgg bi waxoon na ne màggal Tuuba mooy suñu dëgg-dëgg fête indépendance ndax moo ñu tax a jot suñu bopp moo ñu tax moom suñu bopp kon màggal bi moo tax rek ku ci mas a nekk Sëriñ Tuuba Cheikh Mouhamadou Moustapha na ko Sëriñ Tuuba bàyyi woon noonu la ko def mooy kenn koy di ko màggal sa kër bi Cheikh Mouhamadou Fadil Mbacké ak seen ak moo digle ne nañ ko doxal Tuubaa kenn ku ci ne di ko màggal si mu nekk dajewukaay boo xam ne ñëpp fi daje mu di ko màggal di ci def poste gan ñi itam mu leen di teralal boppam li nga xam ne nguur gam dajeeloon daa leen ko def mooy li jëm ci wàllu sécurité ak wàllu li nga xam ne état la war waaye li jëm ci gan yi ñoom ñi fi nekkal Sëriñ Tuubaa seen gan yi bopp yi seen mbirum bopp lañ koy fi ñoo koy defal seen bopp noonu la ko Cheikh Amadou Farid daan defe di ko yëgle muy yaatu ba màggal gi ak si fi mu agsi bi mu fi bàyyeekoo itam Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ñëw yokkaat màggal bi ubbi ko ba àdduna sépp gën ko xam mu agsi fi tey bi mu fi bàyyeekoo rek Cheikh Abdoul Khadir yàggu fi mel na at la fi am bi Serigne Saliou Mbacké ak sa itam mu gën a ubbi ko waat gën a yaatu gën a ba fii mu agsee fii tey dugg ci suñu loxo mu nekk li ñuy wax fatra bu jeex ndax fatra bu doomu Sëriñ Tuubaa jeex na ay seetam daal ñëw ki yàlla dof nag mu njëkk nekk xalifa Sëriñ Tuubaa ci ay seetam mooy Cheikh Mouhamadou Bara moom la ko suñu borom jagleel tey ndam lu ñu ci am rek ak fu liggéey bi àgg ginnaaw bu ñu santee suñu kilifa yu baax yi faaw ñu sant ko ci bu baax Cheikh Mouhamadou Lamine Bara digal ma ñu taxawal màgg bi bi ma ko santee itam fi ma ko tàmbalee mboolem njabootu Serigne Touba waaye dem naa ci kër yëpp mboolem kër doomu Serigne Touba ku ci ne yëpp kala fa nekkal yaa ko tànnal sow waaye tànnu ko ndax loolu itam la ma ci mooy comme kookaay kilifa kër gi bu ko tànnee muy dem am na ci ñoom ñoo xam ne sax at mu jot dañuy demaat ci seen kilifa laajawaat leen digal danaa ci tudd ku mel Sëriñ Bassirou diiru fukk at yi saa su at mu jotee day demaat ci Sëriñ Mountakha laajawaat ko ndigal ba sëñ bi joxaat ko ndigal mu door jox sëñ Ousmane mii jiite comité bi noonu la moo tax comité bi ni ñu ko danaa ko leeral tuuti ndax sëñ Ousmane mooy coordinateur commi commission bi ni mu tëddee dafa am lu ñu tuddee majlisu suuraa majlis suura bi Cheikh Mouhamadou Mountakha lañ defoon jëwriñ ji ma topp ci moom di ko ci liggéeyal mboolem ñi nga xam ne ay kilifa lañ nag te bokk ci yoon bi di ay mag yoo xam ne mënatuñoo bokk ci biir ak commission wala ñuy lijjanti du ma noonu ñëpp lañ tàbbal ci biir bàyyiwul ci kenn muy ci kilifa yi yoon bi ak lenn ci Cheikh si ñooñu di sottante xalaat di waxtaan ngir bëgg lu gën a jëmale liggéey bi kanam ndax liggéey bi diis te diis seen wax diis seen yoo xam ne. benn bopp attanu ko kon mooy ji sóoraal mboolem kilifa yu matul ñi ci ëpp ci la nekk ak lenn ci sëti Sëriñ Tuubaa bi mu weesoo nag ma jël sëñ usmaan def ko muy coordinateur comité bi kon nag loolu mooy li nga xam ne commission bi tëdd na ko ñu leen di sant bu baax a baax nag dina gërëm ndax ñoo ñëpp dañoo laxasaayu ndax ci xaside safari am na fu Sëriñ Tuubaa waxe ne aw rëftani mawaahibal ak yaasi yaa man yu naw yaa man yu naw yu bihi qiyaasi loolu war a waral sax ma mawaahibal ak yaasi moo tudd leen ko ndax dafa mel ne Sëriñ Tuubaa dafa tànn mbooloo moo xam ne dañoo wutu ay millions ndax yoon muur yëpp xëy jub commission waaye ñu leen si rek waaye di ci def njàmbaar ak positif am na ci ñoo xam ne bu liggéey bi tàmbalee bu mu jeex du ma leen tegal kon xam nañ ne Sëriñ Tuubaa la ñuy liggéey def nañ ci ay jéego yooyu ndax jéego yi fi ma koy tàmbalee mooy boo xoolee ci wàllu gan yi bi ñu door a agsi délégation yi ñu ngi ko fekkoon ci ñaar fukki délégation ak ñaar daaw bi fi Cheikh si Moukhtar di bàyyi ko délégation yi dem na ci juróom-ñeent fukk ak ñaar kon loolu yokk na ci biiru fukki at délégation yi jóge bitim réew itam ñëpp xam nañ gis nañ ni mu yokkoo kon loolu lépp tam seen taxawaay la ñu leen ci sant leen ci gërëm ci wàllu leeral itam ngir nit ñi gën a xam nit ñi dañ daan màggal si ba agsi am na ñoo xam ne sax xamuñu màggal gi li mu firi loolu nag ci wàllu communication leer na ci bopp ñëpp léegi ambassadeurs yi day ñëw itam dañ daay ñëw ba ñibbi di jàmbat ne dañuy agsi ci cérémonie ba ñibbi duñu xam lu ñu fi jële ni ñuy tuddee traduction euh, bi ñuy def simultané loolu itam bokk na ci li nga xam ne def nañ ko ci ku ne xam na ne itam cérémonie officielle bi ci salle bi ñu toog lañ ko daan waaye mu xat ñu yokk ko ba def ko ay bâche yaatu yoo xam ne comité bu moo ko moom war seen bopp di ko def at mu jot mu doon nekk ci condition yoo xam ne dana gën a méngoo màggal Tuubaa wàllu njàngum alxuraan bi itam na bu baax a baax ndax euh, Cheikh Abdoul Ahad Mbacké da daa santaane ñu jàng ñetti kenn ci biir loolu nag ñu ne kon nag li fi doomu Sëriñ Tuubaa waxoon loolu bu ko kenn soppi nañ ko digle woon rek noon la noonu la ko Cheikh Sadio Mbacké daal santaane waat ak ñu ko fi wutu biñ dikkee nag ci ndigalu sëriñ bi ñu tàmbali bu màgg desee ñaari fan ñu ubbiwaat njàng mi loo xam ne daara yi dañ ci daje yi ci ëpp sax daara yu bàyyi ko ci dëkk bi lay doon ngir alxuraan ji ak xasida yi gën a dund ci biir màgg loolu itam bokk na ci liggéey bi nga xam def na bokk na ci li nga xam ne itam ñoom waa mbooloo mi def nañ ko mooy colloque yi nga xam ne dañ ko organiser ñetti at yu jot daaw def nañ ko kon ñu ngi ko war defaat ci 2020 wala 2021 ndax fa ñetti at lañ koy def ak jël sama ay milliers yi nga xam ne at mu jot ñu def ko loole itam jur na ay résitat yu bari ndax bañ ko jëkkee def ca foire bi def itit bu mag ci jeexeet ki nga xam màggal Tuubaa am na ko ci wàllu culturel am na ko ci wàllu social am na ko ci wàllu économie ndax loolu itam day fànn yu am solo ndax bu ci ne daa am ndax wàllu ruux moo ci jiitu ndax ki màggal si positif bi muy loolu moom jëru biir si social bi am na solo ndax ku ne xam na ne loolu bokk na ci bi nga xam ne Sëñ Tuubaa sance na ko Tuubaa màggal bi da ko indi ndax beneen dëkk boo dem boo demoon Dakar wala nga dem Thiès wala nga dem Kaolack foo dem quartier dañ ko dañ koy ber da ngay dégg ñaan wolof yi fee pël yi fee naar yi fee waaye loolu amul Tuubaa fii kenn xamewul nit ci askan wu mbokk xamewuñ xeet wu mbokk benn bëgg-bëgg lañ am benn jubluwaay lañ am jenn yaakaar lañ am genn ngëm ko ñu am loolu bokk na ci li nga xam ne màggal Tuubaa def na ko ci wàllu social wàllu économie itam la ko njëkk ñëpp dañ daa wax naan màggal Tuubaa gi yàq na ndax feet yi dafa bëri ci réew mi kon dañ ko war a bàyyi ndax mooy di daaleel économie réew ñu dem ba jàngat nañ ne mboolem feet yi Sénégal yëpp état Sénégal dana ci perte nangam màggal Tuubaa nag waxuma la état bi di ci perte waaye deux cent cinquante milliards dana ko dugg ci Sénégal deux cent cinquante milliards yi boo xooloon taxes yi nga xam ne état bi dana ko ci am dem na ci lu jege ñeent fukki milliards kon loolu mooy taxe direct ak indirect kon màggal Tuuba lépp loo xam ne nguuru Sénégal def na ko ci rek doo ko delloo ci biir màggal la itam moo jur 2011 bi ñu defee étude bi ñu xam ne màggal gi waxuma la muy nekk lu yàq koom-koomu Sénégal waaye day yëkkati koom-koomu Sénégal ca lañu sàkkoo nag ne màggal gi mëni mëneesu mëneesatu ko ñàkk def fenn loolu ñoo ko sàkk dox ci ay jéeg jéeg yi ma ci dox ci biir du ma ko wax lu jafe la woon ba yàlla def mu sotti kon loolu itam bokk na ci jeexit bi nga xam ne loolu jur na ko bokk na ci li nga xam ne jur na ko it journaliste yi at mi nga xam ne ñu ngi tàmbali liggéey bi weesuwutoon téeméer nangam daaw li fi ñëw ci journaliste yoo xam ne eh, kuréel gi ko yor eh, jokkoon nañu ñoom dem na ba dañ ko mujj limité ko ci ne mënatuñu weesu junni ndax ëpp na kon loolu tam ci diiru fukki at yokk nañu bëri bëri boo koy xool ci fànn yu bëri bëri ci wàllu bitim réew bi ñu tàmbali màggal gi dama ne woon dañoo bëgg def ko ci mboolem continent yi moo tax ñu tàmbali ko ci France def ko ci Espagne def ko Italie def ko Amérique def ko Gabon kon continent yi daj na ba keroog ñu ci amaat leneen ndigalu sëriñ bi itam am na jeexit ndax jeexit ji mooy. la ko jëkk màggal gi dañ daa dem ba agsi ci màggal gi ku ne di ko dund loola nag ñun la ci doonoon suñu jubluwaay mooy bu weeru safaru tereetoo ña nga xam ne ñu nga ku ci doontu murit tam da ni nga gise ñuy dundal màggal gi da nga ci gindi ko ci mbirum Sëriñ Tuubaa te gindi ko gindi ci mbirum am dimbal loolee ndax fii ñu toll màggal gi bu yoru safar teeroo koo xam ne waxuma la nga di bokk ci yoonu Mourou sax waaye tubaab yi ñu dëkkee sax bu weer safar teroote dana yëg ne màggal gi agsi kon loolu tam am na jeexal jur ba fii mu ne itam safar yi nga xam ne ñu ngi koy dundal moo jur weeru safar yi bu agsi rek adduna sépp di ko màggal liñ daa tuddee karawaan karawaan baat bi dafa xaw a diis ndax li Sëriñ Tuubaa di wax lakinnahu jarahu nisfu ismihi li yarba fa xasdu kulli musamman min sumaahu samaan lu ne rek tur wa ca am solo baat bi nag li muy firi ci wolof mooy xaafilatu ci arab mooy dox rek ngir xeetu jeexit sëñ waaye nag baat bi dafa méngoo lool ak ni yëpp ma baat yi yoon moo tax itam ñu soppi ko tuddi ko doxub safar muy euh, ala athar cheikh ndax lu ne itam tur wa da ca am solo ndax lu ñuy wooyee jëme ci nuru Sëñ lu ne boo déggee tur rek daa war a nuru nuru si bi am jeexee ci loolee itam am na jeexitu rëy ndax ñaari barab rek leen daa foo xam ne njurum Sëñ Tuubaa kenn xamewu ko fa ñu fexe ba def fa ay ndaje di fa def ay waxtaan ba ñooy gindi ko ci mbirum Sëñ bi ak barab yi nga xam ne Sëñ Tuubaa jaaroon na fa ñu dem xeeñtuwaat jeexit Sëñ bi dund la ko moom jeexit ju ndax bari na ci délégation ñoo xam ne la Sëriñ Tuubaa Cheikh Abdoul Ahad daa wax naan xelu Sëriñ Tuubaa xëyu leen waaye léegi ñu ngi ñëw ci màggal bi di jënd ay nag di ko ci def te loolu jeexit yi ñoo ñu ñu dootu di waa karawaa bi moo ko indi itam ba fii ne fas mu continué waat eh, di liggéey boobu insha allahu itam première safar bii bu agsee itam eh, Cheikh Mouhamadou Mountakha jox na ndigal ci njaarim keroog bu muy dem ne naa wax sëriñ Mamour Cheikh Mamadou Fadil mi nga xam ne daara alxuraan yi ci moom loxoom la nekk bu ñu àggee ci bis bu njëkk ci safar mu woote ci jumaa ji ñëpp jàng fii kaamil ubbee ko alxuraan ndax sëriñ Tuubaa lu ñu koy defar rek ci alxuraan lañu ko war a tàmm mu demee ba guddi nag sëriñ Hamsatum sëriñ Chouaib bi mi nga xam ne kon ne xam na cër bi ko sëriñ bi dafa ci xasida moom itam sëriñ bi jox na ko jigéen guddi gi mu dundal ko àndal ko ànd ko mboolem ñu yëngatu ci biirum xasida ñu fanaan ci jumaa ji dundal ko ci xasida ngir waajal ko safar mboolem dëkk yi itam nag fenn fu ci ne ñoo ko daa def ñëpp yeesal nañ ndigal li fu ci ne incha allah fas nañ yéene yebal fa délégation mu dem fa ànd ko ñoom dundal ko ñu waajal màggal yi ngir kii màggal si xam li ko yëkkati loolu lañ ci waaye màggal gi nag fii la ci Tuubaa waaye nag bëgg nañ kenn ku ci ne boo jëm si ci dëkk bi nga xam ne li yëkkati lu moom ca ndakaaru itam Masaalikul Jinaan wax naa ko keroog bu ma fa demee eh, moom itam Serigne Bakk yu fay dana ko woote am na bis boo xam ne danañ ko fa def comme nañ ko baaxoo defee ngir loole itam lañ ci jublu mooy gën a leeral nit ñi ñu gën a xam li nga xam ne Serigne Touba moom la bind gën xam li li nga xam ne itam mooy njàng ba mu gën ñu gën a gindi ko ci biir sëñ bi gën a gindi ko ci leen tax bi ñoom itam ci quartier yi ci Dakar yëpp dañu ko def tàmbalee ko Moussa bu ñu ko tëjëwaat ko fa door a màgg si Tuubaa fii ci biir kër sëñ Tuubaa gi itam euh, Cheikh Mouhamadou joxe na ndigal daanañu wax bis bi waxtaan naa ci ak sëriñ Abdoul Ahad ak sëriñ Ahmadou Badawi mi nga xam ne mboolem lu aju ci njàng mi ci université bi ci loxoom la ko sëriñ bi teg moo ànd ko ñu ngi koy saytoo ñëpp danañ fi def mel ndaje mu yaatu moo xam ne dinañ ci invité mboolem université yi Sénégal invité ci mboolem borom xam-xam yi ak ñu yor ay daara ji senegal invité ci sax ñi nga xam ne bokkuñ ci yoon bu rek waaye xam-xama leen tax li ngir la ko liggéeyu sëriñ bu mag bi te ñoom tam ñu dox ci ay jéego def ci ay xalaat yoo xam ne xalaat la yoo xam ne bu génnee rek ñëpp danañ xam ne lii war naa mën a defar dëkk bi kon daal loolu bokk na ci programme yi nga xam ne am na ci màggal yi mbooleem liñ ci daa def nag dara soppiku ci li ci xaw a soppiku tuuti rek mooy ku ne xam ne ne sëriñ bi fii ci biir kër gi incha allah bu àndee dogalu yàlla fi la fas yéene dundale màggal yi ni mu ko defewoon ci koor bi parce que du def ñetti fan yi kon baasu exposition bi ñu daa def ci bundu kër Cheikh Mamadou Fadil ren dañ koy toxal ndax bundu kër Serigne Touba gi fi lañ ko bëggoon def waaye baas xaju fi سرين من تصوري قصيدة مرح مجهد لقال سرين أبو مشاق مرفالم واحد سبتار خير باس بين باخو ديش دي بوردو كر خير سنة دومر يدر كفوف نجر مجهد سرين دي دا وقت ولي دي بغي دي جنجان من دح فانا خمنا لم قيدو دي لي باسو اكسبوسون بيت يوفسينو كل دف چه بوردو كر سنتو واي دي چه دار مانان نح لوالي تم دفع بوكو چه دي گاني نيورو چه نين چه مغل مرح دروي دروي چه ci biir délégation itam ci biir programme màggal gi xam ngeen ni waa Mauritanie Serigne Touba da leen a fonkoon kër gu masam ber na leen fi kees njaari wurta leen doon seen kër boobu fii ci Touba fii ci distinction bi bu ngeen déggee ñu koy tuddee Daaru Naar fala sëñ bi daal dara naar bi loolaa waral at mu jot ñu tànn benn bis jagle leen ko di leen ci taral ngir dàkk ci bëgg Sëñ Touba ak mboolem ñi nga xam daana ko dem ren genn soppi amul benn doxale ndax sëriñ bi lenn lu ci ne ku ci ne te jiitu commission ak ñu topp ci ginnaaw bi ak nañ ko daa doxale xamoon na ko sax waaye nag fi nekk Sëriñ Tuubaa lu ci ne maanaam sax min ayatin aw nunsiha naati bi xayrin minha aw misliha moom lu ko ci ne soppi ba ñëwee ba ne subar màgg bi sax bu ko neexoon soppi nii ndax yëfama ndax xalaatama mbiram ba ñu ko wanee lépp war naa ko ko ñetti yoon ba démb ci nit waaye mu ne amul dara lu mu ci sopp lu ci nañ ko daa doxal daal nañ fexe bu gën ko defoon te gën koo sell te gën koo fonk amul kon daal loolu ci tënk mooy wax bi nga xam ne nañ ko wax li des nag duma ci mën a wax ndax euh, sëriñ bi ni mu ko baaxoo defee ci première safa bi ku fi nekk Sëriñ Tuubaa danay yëkkati ba fa kàddu goo xam ne ca làmb ñoom lay te moom mii kat mas naa wax Cheikh Mouhamed Lamine Bara ak Cheikh Sidi Mokhtar ne leen seen genn kàddu moo gën su junni kàddu waaye ñu itam loolu lañ koy wax mooy genn kàddu googee moo gën su junni kàddu ci biir liggéey bi nga xam ne itam waa communication bi danañ ko def am na ay documentaire yu ñuy def ndax loolu itam damaa xalaat ne Serigne Touba li mu liggéey am na ci doo xam ndax gis ngeen wax ji gudd na xëy na nit mënta am toog ci benn jotaay ko setal bu ñu ko defee ci documentaire na xëy na ci lay gën a yomb ci nit moo tax ma xalaatoon ñu def ñeenti documentaire ren documentaire benn bi day jëm ci jëmmi Serigne Touba jëmmi Serigne Touba ak ci dolli jëm ci dëkkub Touba ndax dëkkub Touba dafa mata leeral ndax dafa bari dafa ay yu ci aju ndax ni ma ko doon waxee bërki démb boo xooloon tey li fi ne ci ay daara amul fenn ndax junni daara 1296 daara motoon na ko daaw li fi ne ci ay jumaa mat na téeméer nagam bokkut ak jàkk jàkk ay téeméer téeméer kon loolu itam dafa war ñu génn ko leeral nit ñi li fi am ci dëkk bi ci wàllu jaamu yàlla waaye li fi am ci wàllu économie lu ci ne ndax mooy ñaari dëkk bi gën a kon lool itam lu mat di leeral nit ñi dañu xam ko ndax buñ xëy ma li fi war a dëkk xëy ma li fi dëkk bi mu toll. xëy na li fi dikki ñu toll kon lii seen ak ñoom duñ ko mën a xam ñi leen ko war a defal dem duñ xam seen mbay mu toll te Serigne Saliou Mbacke daana wax ne sëriñ Touba nee na ak maandooti mu ngi tàmbale ci yamale ñu yàlla ko kon nit ki itam boo koy nattal bu faaw nga xam ni mu toll mu toll benn documentaire ngi jëm ci mboolem xalifa yi Serigne Touba yi tàmbale ci Cheikh Mouhamadou Moustapha ba ci ak Cheikh Sidi mi nga xam ne moo fi mujj nekk kenn ku ci ne sëb liggéey danañ ko tënk def ko ci benn documentaire ñu xam ne ñoom itam Serigne Touba dafa ñaanoo suñ borom ba suñu borom may ko waaye kenn ku ci ne itam la ci sa mission defoo ba mu sëkk danañ defaat beneen documentaire nag boo xam ne kii fi yàlla teg tey di Cheikh Mouhamadou Mountakha moom lañ ko jagleel ndax moom ko ne xam ne taxawaayam fa mu tàmbalee ba mu agsi ci pëstéefam ak dogam nangu kilifteefam ak ak jaayanteem même fi mu taxawoo yoon wi ak fi mu ko yóbbu loolu lépp itam def nañ ci benn document bu jëm ci jëmmam ak li ñu war jàng ci moom te la ci jiitu mooy nangoo topp sa kilifa ak topp ci ak ak ak ko ndax moom dama daa wax bi fi ay kilifaam nekk na ma samay kilifa dama leen bàyyi sama bopp bàyyi ko bàyyi leen seen bopp bu may ku ma ci jëm bàyyi naa la sama jëm bàyyi naa sa jëm. kon loolu itam day loo ne lu ñu war a jàng ci moom lu rëy la jàng jàpp la koy ci naala wu rëy bii nga xam ne am na ci yitte ju rëy am ci positif am ci dogu mooy eh, daara Serigne Touba ji nga xam ne manis naa wax ne naal yi fi Serigne Touba bàyyi moo fi des ndax Serigne Bakki Bousso leetar bi nga xam ne bindoon na ko wax na ne sëriñ Touba ñetti naal lañ xam ci lu mu fi bàyyi ba ci jiitu mooy yoonu Makka ndax bind na ko sax diis na ci moom metti na ci moom mu dem ba tàbbi àjjana te demul Makka waaye Cheikh Mamadou Fadil ak Serigne Gaawaan motta nañ ko yéene moo tax suñu yëpp daxat mboole ñu daa yóbbu Makka li mu leen daa wax mooy def leen ko addi Cheikh Fadil ngir mott li yéene ba ca dolli ko nag mooy jumaa Tuubaa jumaa Tuubaa yi ku ne xam na ne nekkatul aw naal waaye waaxee la kon benn sóobu rek moo ci def mooy daara joo xam ne Sëriñ Tuubaa dafa wax ne suñu mbokk bi sax dafa wax ne sëriñ bi dafa wax ne dafa bëgg mu doon daara joo xam ne day fu ne la nit di bàyyi ko di fi ñëw daara lay doon yooyu daara doon lay doon yoo xam ne itam ku fi dikki sa réer dana dañ bu faw li mu ko waxee rek bil Mustafa lii beneen qudduusu madrasatan biha yazaalu al azaa wal jahlu wal kabru kon loolu muy loo xam ne itam ci biir documentaire boobu yi ñëpp war nañ ci jàppale suñ bi ndax mel na ne jénn yitt jooju ak wenn naal woowu am te somb lu wax naalu rëy la waaye nag la tabax jumaa njaareem ja jëre bi njaareem ba indi ko Touba ca yooyu jamono toj carrière bi tabax jumaay Touba tabax daari kenn bi tabax kër Sëriñ Touba bi tabax Touba ba mu agsi fii loolu la xaju ci seen boobu ay bindam ca biir géej gi dafa wax ne dafa wax ne dafa bindoon ci ay loo xam ne da doon fàggul taalibe yi xéewal suñ borom nag xamal ko ne ko looy faggul sa taalibe yi rek na nga ci boole méccam yaxantu ndax mooy xéwalu mujj jamono nee na ma bind ne ma bind ne ahaddani jannati addin tajri min taxtiha al anhaaru mujjal qadri nee na ba ma ko bindee nag nee na xéwal yi sotti ko ak mbewte dugg taalibe yi ñu di ko soppandiko ak di ko jëfandikoo fu neexu say borom nee na ma am ci jaaxle am ci tiitaange nee na ma laaj ko suñu borom nag mu ne ma yaa bindoon ne àddina ne ko soppi nuun gi ak laam ñaare Sëriñ Tuuba nag soppal ko ne àddali jannati xaj àddin tajri min tahtiha al-anhaar nee na mu ne ko nag kon danaa leen defal xéewal waaye ak ak ak dootu bi ci toppal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh laaj yi ñu doon laaj yëpp sëriñ bi tontu na ko xanaa rek di ñaan eh, mbooleem naa li nga xamante ni bii sëñ wax na ko fi suñu borom jox ko ci ndam yàggal fi loolu sëriñ taxa Mbacké euh, liggéey yi mu naanal sëriñ Touba yëpp suñu borom jox ko ci ndam lu wér a kon lii rek la presse bu Sénégal doon sàkku ci sëriñ bi muy ay leeral ci dëkk bu tedd bi di ay leeral ci ku tedd ki di Xaadimu Rasuul waaye tamit di ay leeral ci bés bu tedd bi di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf